salaamaaleykum ñu ngi leen di nuy di leen ziar di leen béggee bu baax a baax voilà ñu ngi nii ci yoon bi nii di xëy ji quoi ñu ne xaar ñu def benn vidéo ñun moom dañuy liggéey moom sant yàlla bu baax baax am na nag ñoo xamante ni moom dañu am seen ay faux compte nekk ci réseau yi euh, ñi nga xam ne dañuy défendre intérêt sénégalais yi ak ñi ànd ak Ousmane Sonko dañ leen di saaga. ba pare naan leen dem leen uti ji liggéey ñoom nee nañ loolu rek mooy seen tontu quoi ñoom amuñ argument ko xam nga nit muy wax yow dangay ngay ñëw nga tontu ko indi argument ngeen argumenté mais dafa yomb quoi gis nit muy wax rek nga ne ko demal uti liggéey yow te nit ki li muy liggéey yow liggéeyoo ko nit ki day xëy suba teel dem daani dooleem ba pare nag di wax ci dëkkam nuy dëkk bi di doxee xam nga loolu rek déjà dar gënu ko noobul hubul watani min al iman yonent bi moko wax amna sax ñu wax ne hadith bu daif la mais bu nekké hadith bu daif timit yanu na mana bëgg sa rew ci jaamu yàlla la bokk waaw ñoo xamante nekkuñ ci réew ma di liggéey di daan sen doole di fa yonne di joxe dépense di fay ay courant fay ndox wa diaspora bi jaa ngeen jëf ba pare nak di waxal sen rew di défendre l'intérêt des sénégalais kon bu len faale ñi nga xamne ñom ñoy nekk ci réseau yi ñom ñoo amul liggéey dañ leen di fay créé loolu leen ay foo compte pour ñuy saaga nit ñi quoi jàpp ne loolu mooy tax nit ñi arrêté wax ji man moom bu leen sonal seen bopp parce que man nee leen lu may teree wax ci Sénégal amut ku may teree wax ci Sénégal tamit amut kenn rek moo ma mën a teree wax ci Sénégal mooy day jël pistolet mu ñëw dóor ma ko ma dee après affaire bi jeex loolu rek moom mooy moom may tax a noppi de xam nga nit moom bu dee dootul man a waxat donc bés bu ñu ma dóoree balu fetal nag ma dee. su dina nopp ci Sénégal waye tank ma ngi and ak sama bakkan bi di and ak sama sago lepp lu xew Sénégal dina ci wax inshallah légui nak lima bëggone wax moy ci lu ñuy dégg ci ben éventuel retrouvaille entre euh, famille libérale quoi muy euh, waa kër Abdoulaye Wadi, ak euh, le président Macky Sall donc loolu lu ma ci bëggone wax moy man dama japp ne Abdoulaye wad fum nek ni yegatul lu xew quoi wad fum nek ni xam nga wad du xalé déjà 1926 buñ ko déclarer rek bu nek ci kayitam mi ñu bari ñu ngi wax sax naan bon Abdoulaye wad jiduna avant 26 te 26 ak légui défé na né ça fait 17 ans voilà donc yag na quoi kon Abdoulaye wad nekatul xalé kon tay Abdoulaye Wade su fekke ne judd avant 26 kon japp nañ ne war na am 100 ans wala luko ko ëpp donc ñu ngi koy ñaanal yalla yalla nako yalla may gudd fan ak wër gu yaram man dama japp ne nak ñim fi bay ñi xamne Abdoulaye Wade jéxal na fu nekk ni ñom ño bëgg a nekk lijjanti sen problème ak Macky Sall di deal euh sur le dos des Sénégalais parce que ñom ñu ci bari ñom ak Macky Sall soreewuñ ñoo ñoyam benn gëm-gëm lañ am mooy nguur nguur niñ ko jàppee mooy nguuru voilà toog rek am ay avantage ak ay privilèges xam nga sénégalais yi ñoom di gën a pauvre di sonnu doomi baa doole yi duñ mën a jàng-jàng bu baax ah ñi dëkk ci àll bi amuñ sax ndox mu ñuy naan mu baax capital ba sax même chose amuñ eau potable hmm? courant am na dëkk yoo xamante ni amuñ ko ñu dëkk ci banlieue bi inondation di leen bëgg a rey ku feebar doo mën a faju Sénégal métti am nag ñoo xam ne ñoom lu ñu jàppee politique mooy nekk au sommet de l'État séddoo ay poste di am xaalis di noos ñoom ak seen ay doom seen doom yi duñ fi jàngee ñoom bu ñu feebaree duñ fi fajoo donc ñoom pour ñoom loolu mooy politique quoi <laughs> dañuy servir ci réew mi mais duñ servir réew mi moo tax ñoom ak Macky Sall mburu fof ko quoi six moins neuf waaw léegi dama dégg ben journaliste bu ñuy wax Pape jogay fay mu ne Karim da fay waat te temps a gis dudu commence di attaquer Pastef nan Pastef n'est pas le premier parti de l'opposition xam nga commencé di tag Macky di ko sa candidature à la mairie de Dakar Ni ne c'était pas une candidature sérieuse tout le monde le savait c'était pour wàññi voix wu Yewwi Askan Wi <laughs> waaye moom xam na ne mënul gagner Dakar comme euh, celle de Mame Mbaye Niang quoi donc ñun xam nañ nu mu demee fu mu nekk nii képp koo xamante ne da ngay waaj a transhumer rek li ngay njëkk def mooy di commencer di attaquer Ousmane Sonko quoi Ousmane Sonko moom képp ku koy saaga di ko xas di ko dal di dal ci kawam yow moom lépp loo bëgg Macky Sall mën na la ko defal Macky moom képp ku ko mën di yàqal yàqal deru Ousmane Sonko rek. mom day contane ci yow ak noko man ti defé nak ñi ñom dañuy saga ñi di yak der ñi di ko jéem dénigrer mais d'al mom d'al commencement yam dal yoonu transhumance am daal ci Ousmane Sonko lako commencé lenn nak dina leen ko xamal quel que soit deal bu ngeen mëna def ba fexé ba Macky Sall tuddee Ablaye Wade euh, stade bi amna ñu bëri ñuy wax naan Abdoulaye Wade sax yegul né amna stade bu am man dama jàpp ne Abdoulaye Wade fenn instant bi xamatul dara lu xew ci jamono ji parce que nañu waxante dëgg mag la ñoom mën naa am ñoo toog seen biir def seen ay waxtaan xëñ na Macky Sall xaw na ñaaw njort ci Abdoulaye Wade ak yooyu parce que xam nga tamit président tamit dafay am ay renseignements généraux li xew yëpp daf koy yëg su xamee euh, situation Abdoulaye Wade instant bi mën na toog ak gars yi ñu def seen ay deal tuddee Abdoulaye Wade stade bi pour li nga xamante ni. moo passé si digganteem ak Ablaye Wade ci ñaaw yi mu doon def moom mu jéem ko naan da koy jéem a rafetal te li ñu si gën a jaaxal mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo représenté woon Ablaye Wade keroog ci ouverture stade bi seen discours sox jotuñ ko liir quoi donc sénégalais yi toll nañ foo xamante ni léegi ngay diil ci seen ginnaaw di comploter pour sa intérêt personnel. ñoom lu ñu la wax dara dañuy toog di la seetaan rek ba bés bi nga xamante ni si la ñuy choisir ñoom ñu def différence gis ngeen ko ci élection locale yi passé waa kër ki Sall ak ñu leen jiite woon ñu leen jiitu woon leur prédécesseur lu ñu jàppoon ci euh, Sénégal mooy sénégalais bu nekk am na prix quoi chaque sénégalais a un boo génnee xaalis jënd leen dinañ la votel bu ñu la votelee ba pare nga wan leen ginnaaw dem fàtte leen ko ba élection jotaat nga ñëw donc sénégalais yi ñëw nañ cette fois-ci. teelu gars yi gars yi indi seen xaalis jox leen xaalis bi nga xam ne moom la ñuy sàccee ci nguur gi quoi mooy xaalis euh, xaalisu réew mi l'argent di contribuable xaalis boobu nag Sénégalais yi xam nañ ne ñoom ñoo ko moom léegi nag ñu bàyyi gars yi indi ko jox leen ba pare ñu dem votel ñu leen neex si grande ville yi nga xam ne si lañ gënoon a am yaakaar te moo leen gënoon a amal njëriñ donc kon Sénégalais yi commencé nañ yeewu Idrissa Seck génn na juste Euh, les élections présidentielles, à l'issue des élections présidentielles de 2019, le Sénégalais yi ne Macky Sall vision yam jam ñaajo yem ah, institution euh, bi nga conseil économique et social c'est une institution budgétivore moom bu nekkee président sax da nga fay jëlee léegi à l'issue de l'élection euh, mu génn dem ànd ak Sall bi mu doon quoi donc gis nga waa Thiès duñ ko parce que dafa am lu juddu woon après nitu Thiès nitu Thiès gis nga waa dañ ko sanctionné ba dóor ko ba dóor ko si biro de vote bi mu doon voté ba pare boole ko ak ay yuux nag xam nga loolu kon ñaaw na Moussa si ñu def ko pare def ko Banda Diop def ko ñeneen ak ñeneen kon léegi ñoom ñoo amagul jom ba léegi rek ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy diil diilkat yi jàpp ne réew diil rek nga koy mën a yoree ak naxaate waaye peuple bi ñoom ñu ngi leen di wan seen bopp. léegi nag deal bi ngeen di commencé bëgg a defaat nii entre euh, yéen ak waa kër Abdoulaye Wade yi loolu sénégalais ñu ngi leen di xaar Macky Sall yow yaa fi waxoon ne Karim Wade dafa sàcc ay milliards Sénégal ba génnee ko fi génnee ko senegal mu exilé wu nga ne Karim Wade bu tegee tànkam senegal bu fayul dañ koy tëj ci kaso gi mooy contrainte par corps waaw léegi ñu ngi xaar ndax ndax yow li nga waxoon ba léegi ndax di ko def ndax Karim Wade bu ñëwee day fay xaalis sénégalais yi wala déet. Les kon Karim Wade yow su dafa and ak yow man moi wax ah, wax Karim day wax PDS dina dugg ci gouvernement bi di ñew dañu ci ay pour affaire bi yeex quoi waaw nak lay xaar ndax Karim bu dina rembourser bi ngeen ko lu parce que juridiction internationale et fu ngeen dem Karim Wade mo quoi voilà yow xam ku ànd ak yow bu yoreelee xaalis su fekkee dañ ko condamné ci justice bu Sénégal bi ne dafa yoreel Sénégal xaalis ndax bu ñëwee ànd ak yow moom senegal day perte xaalisam boobu noonu loolu ñu ngi koy xaar ak nu mu mënti demee PDS dugg ci gouvernement ñàkk duggal ci gouvernement ñun loolu ça nous intéresse pas parce que am na ñoo xam ne seen transhumance ñun du ñu bett waaye xam xam leen ne lu leen fi dese bariwul su fekkee da ngeen di dem ci gouvernement pour dem séddoo ji xam leen ne un an et moo ci des. su ngeen demee ngeen profité def lu ngeen man waaye sénégalais yi de dinañ tàggoog Macky Sall ci nii wala ci naa dinañ ko wan ne ko réew mi moomoo ko nekkul yow yaay décider ku war a toog ci réew mi du yow yaay décider kan moo la war a remplacer mais c'est les sénégalais qui décident ñoom ñooy choisir te dinañ choisir ku ñu bëgg incha allah te du Macky Sall tamit moom moo fiy toog ba faw di ci constitution bi ne daf fi am ay troisième manda loolu benn sénégalais du ko nangu seen deal yi ngeen di def nag. man de jàpp naa ne Abdoulaye Wade yëgu ko Abdoulaye Wade mag la te fi nga jaar ak moom ak li nga ko def jëndee ko Abdou Diouf di ko toroxal te moom li mu la defal Abdou Diouf xaaj xaajaat bi defal la ko Abdou Diouf mosulaa defal dara moom moo tax nga dégg directeur Petrosen tax nga dégg ministre des mines tax nga dégg ministre de l' intérieur tax nga dégg premier ministre tax nga dégg président de l' assemblée nationale ngeen jote jotee nag mënul ñàkk nga fàttali li mu la defaloon yëpp di acharné wu ci kawam ak njabootam. na da leen di jéem a toroxal donc dem nga nag ba mu yàgg nga xaw a ñaaw njort ne sa jaar-jaar ak Abdoulaye Wade ñaaw na ñi fi bàyyi ñoom adduna <laughs> moo leen ñor ngeen bëgg nag comploter sénégalais yi ci turu Abdoulaye Wade mais man gëw ma ne Abdoulaye Wade nag yëg na leen su ngeen fi nekkee ne da ngeen di complot di deal sur le dos des sénégalais pour nekk ci nguur gi naan da ngeen di séddoo di def ay retrouvailles famille libérale ñun loolu ça nu intéresse pas ay ay libéraux yi retrouvé ñak retrouvé wu ñun suñu yoon nekk xam nga ñun suñu yoon ci lan la nek ci réew mi mu soppeeku réew mi ni muy doxee lañ bëgg mu dëñ nous voulons un véritable changement une véritable rupture ñun lool mo ñu tax a jóg alternance ñun soxlaatuñ ko mais alternative lañ soxla lool nak bu ébo ngeen xam ko donc lool la amoon lu ma doon wax rek ci li nga xamné dégg na journaliste bi di pap jogay fay wax ko mu am ak mu ñak am ñun ça ne nous intéresse pas waaye en tout cas sénégalais nous ñoom ñu ngi xaar euh, élection jot ñu def lu ñuy def kon ñu ngi sénégalais yi rawatina les primo votants la jeunesse nous dem fexe ba jot carte pour mën voter pour mën choisir ki nga xamante ni lañ bëgg élection législative yi mu ngi élection présidentielle moo ci topp te ñun suñu réew dañ ko war a soppi incha allah gëm nañ wa rahmatullah